asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. asalaamualeykum nuyoo. sëriñ bi nee mi ngi nuyoo. nuyoo bi nag li ko waral. nuyoo bi nag li mooy ndigal rek. luñ jot. war koo jottali. te war koo jottali. cheikh Mouhamadul Muntaxa dafa joxe ndigal. jox ko waa kër maam Cheikh Ibrahima Fall. jox ko waa kër maam sëriñ Amdi Moodu Mbenn. la jox ndigal li. la jox ko waa kër maam Cheikh ñëpp. digal naa leen. digal naa leen. ñu samp ay garab. ñu samp ay garab. ci corniche bi wër Touba. ak sëñ Abibu mi mi nga xam ne moo jiite Touba ci kanam. sëriñ Abibu mu sëriñ Fall mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam. waaye nag daf ma cee boole. waaye nag sëriñ Muntaxa daf ma cee boole. ngir bëgg maa dimbali rek. moo tax ma di ko yëgle. di ko yëgal mboolem koo xam ne. di ko yëgal mboolem koo xam ne. sa jëwriñ laa. ak képp koo xam ne. sab soppe laa. soppe mooy koo xam ne. soppe mooy koo xam ne. li nga yéene sa bopp rekk nga ko yéene. moo tax nag maa ngi koy yëgal képp koo xam ne. li may yéene sama bopp rek laa lay yéene. léegi liggéey bi nag. léegi liggéey bi nag. dimaas la 30. ci lañ koy tàmbali. ci lañ koy tàmbali. ñu ngi koy tàmbalee ci rond boobu yi nga xam ne booy jóge booy jógee Mbacke di dugg Touba fi gendarmerie ne fi lañ koy tàmbalee. jëm penku jëm penku. ba wër korniis bi. ba ndeyjoor ak càmmoñ. ndeyjoor ak càmmoñ. ba agsi fi ñu tàmbale woon. noonu lañ koy doxale ma ko yëgal bu baax nag. bëgg ku mën fanaan ci samedi. bëgg ku mën a fanaan ci samedi. nga fanaan ci. ku mënta fanaan ci it. diggante huit heures ak neuf ci suba. fekk la fi fekk ndigalul sëriñ Muntaxa nag. nag. gënuma leen ko xam. gënuma leen xam. ku ne xam na ni. ndigalul sëriñ Muntaxa. ndigalul sëriñ Muntaxa. njariñ rekk la. sëriñ muntaxaa lu mu digle rekk. rekk. njariñ la loolu ñëpp xam nañu ko ndigal lu lay jëriñ nag ndigal waaj jërul cee daal di sóobu rek bu ko defee mboolem ñi nga xam ne bu defee mboolem ñi nga xam ne dañoo dañoo aju ci man tey ñëw amul fenn fu ñuy yónnee oto. ndax fu nekk dañ fay nekk. moo tax ku nekk rek na dagg paas. fu fi waay mën a nekk rek. a na dagg paas ñëw. na loolu daal. loolu daal moom laa ne woon ma yëgal leen ko rek. jërëjëf. Thank you.